ci xibaar yi ci wolof ci gàttal jaajëf Babacar Fall mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bisimilah ci xibaar yi ñu ngi déglu tey ci ngoon président Macky Sall ci kàddu yu mu war a yëkkati comme ni nga koy amalee saa yu at wii di uh, jeex président Macky Sall ñu koy xaar ci yu bari tey ci ngoon coow gannaaw daal ba ñu bañee ne duñu daal di uh, suul ab néew foofu ca Pout Dagné dem nag dégg ngeen benn pàcc daal bi ci jote wax waaye tamit ndaw ñi foofu lee ca Pout Dagné daal ne pare nañu ngir daal di méngoo ak dogal yi nga xam ne kilifa dañ koy jël OTEP di yuuxub wàllu di ay doomu sénégalais yay dund foofe ca Maroc dañoo bëggoon wutali Espagne waaye ci ay prison la ñu daal di mujjee te sax ku moytuwul ay daan yu diis gànn moo leen fay xaar fii ak ñetti weer ñu joxe campus social bu université Amadou Mahtar Mbow bu Diamniadio di ay cadre ministre bu enseignement supérieur boobu nag campus war a dalal lu toll ci juróom benn junni lal ñaareel pàcc xibaar tàggatam dañ ci ànd ak Abdou Diouf junior yéene kay ak Modou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou Thiam Yacine Pouy moo fexe ci digital bi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM président Macky Sall tey ci ngoon la war a yëkkati ay kàddu comme ni mu koy amale saa yu at wi di uh, jeex dina nag discours boo xam ne daal ñu ngi ko ci xaar ci yu bëree bëri waaye nag at comme ni mu ko doon amale saa su ne du jàkkaarloo ak ñii di way taskatu xibaar yi at yu moom na muy jeexee métti lool ci ay doomu Sénégal yeneen foofe ca Maroc dañoo bëggoon wutali Espagne waaye nag euh, ci ay prison la ñu daal di mujjee foofe ca Layun di nag ay doomu Sénégal yoo xam ñu nga yuuxu wàllu ngir ñu da euh, jàppal leen li ko mooy nag ay daan moom moo leen fay naraxaat di sax ay daan yu diis Dame Sylla doomu Sénégal la bu doon foofe ca Maroc leexal yi ci téléphone bekk Ousseynou Diop. lu tax ñu téye fii euh, à la jëloon gaal pour dem Las Palmas bañ demee ba si ay côté layun lañ leen jàpp quoi d' liñ leen accusé ne loolu tey peine bu si gën a gàtt la peine bu si gën a gàtt la comprendre mais ki nga xamante benn jël tëj ko dix kooku kooku bu génnee lan lay amal société bi dimbale ñu ut ay avocat pour dimbale pour dimbale leen wala boog ñu waxante consulat yi fi ne comprendre contacter consulat ñu xam ne seen doomu doomu seen quoi mais prison bi ma xam plus de cent personnes ay xale ay problème de capitaine reyuñ sàcc ñu. ak RFM kumpa jeex na. coow li capput dag ne gannaaw ba ñu daal bañee ne duñ fa suul ab néew foofe nag capput dag ne ca région bu Thiès ndaw ñu daal ne ñoom dañoo pare ngir daal di méngoo ak dogal yi nga xam ne kilifa yi dañ ko fas yéene jël ki yoroon seen i kàddu di Mamadou Faye ci téléphone beeg Ibrahima Jamme. ñoom ñoo ñu di wax ne dañuy tere ku suul géwél ci ñu dëkk. loolu amul parce que 65. 65 63 lañ leen daggal ay cimetière un hectare. chef de village ne leen kaay leen fi ma dagal leen lu yaatu muy un hectare boo xam ni Senghor moo defoon décret nag jëwel di suul ci suuf depuis loor nag ñu njëg seen sëgg di fa suul ñeneen yor seen sëgg di fa suul ñeneen noonu ñeneen noonu mais bu ñu toogee dégg ci média yi naan waa pour dak ne dañuy bañ ku suul jëwel ci seen suuf ñun affaire bi def ñu jëlee kaw ñun ay républicain la kilifa yi bu ñu newoo dañ leen di daggal fii ñun mënuñ ci dara waaye nag suñu position wax nañ ko ñëpp dégg nañ bu luñ jël affaire bi def ko affaire yi géer ak jëwel man toujours loolu lay bañ mbir mi nañ ko wax mu leer buñ ko politiser nañ ko wax mu leer jël sama dëkk di ko vilipender ci loo xam ne du dëgg du yoor ñu koy ŋaaw ci ŋaawtee fu ne yéen ñi autorité compétente yéen ñi nga xam ne yéen a yor média yi Sénégal yëpp dégg ko feeg ñetti weer dinañu jébbal euh, foofu ci université Amadou Mahtar Mbow bu Diamniadio nag euh, lii di campus ba ministre de l'enseignement supérieur moom moo ko daal di xamle euh, mu jar téeméeri milliards ci suñuy koppar étudiants yi nag du yàgg mun nañu dem foofe ca campus ba nag am lu toll ci juróom benn junni laal Cheikh Oumar Anne ci micro beeg Abdou Diouf Diagne. feeg yi ñu pare batiment yëpp livré ko muy rectorat bi muy bibliothèque bi muy amphithéâtre bi ak muy beneen UFR bu ñu toll li ñu gis bi ni mu la première fois histoire Afrique université bu ñu toll ci investissement ak ci xalaat mu ñu koy def ci en Afrique pour la première fois loolu nag ci gis-gisu président Macky Sall may sant ñëpp ñi nga xam ne ànd nañu wax naan ceeg étudiants yi tey ñu ngi fii ci cité universitaire bi gis nañ ne cité bi cité universitaire bi six mille place la dañ ko tabaxoon pour étudiants yi mais ak accueillir jeux olympiques yi jeux olympiques de la jeunesse yi renvoyé nañ ko ba mais gouvernement bi jàpp na étudiants yi mun nañu commencer occuper bâtiment yi ci respect normes yi nag normes yi parce que avec euh, bâtiment yi gouvernement ci soññi ñëpp ñu taxaw ci li nga xam ne réew mi moo ko bokk parce que investissement yu rëy la réew mi def soixante milliards la ñu commencé woon ne dañuy def université bi mais tey université bi pare dina egg cent milliards léegi nag gis naa ne ma ciy wax ak sénégalais yi di ci sant président de la république mais di wax ne gis nañu modèle ak président de la république modèlu université bu ñuy tabax te loolu Sénégal am na yokk na ci ay capacité te dinañ ci jàng pour tax gën a defar suñu système universitaire bi nga xam ne président li mu ci investir ëpp na li xam ne moom lañ ci investir ci réew yi ñu wër gannaaw ba Sénégal amee roplaan bii di Airbus A220-300 Air Sénégal nag di dalal xel yi ne daal boobu boobule euh, roplaan benn la ak yi ñu faral di jël moo xam Air France wala Delta ak yeneen euh, commandant de nag di Pape euh, Pape Babacar Seck nag di indi ay leeral ne daal ne ngir daal fexe daal ba mën a méngoog lii di concurrence daal ñu ngay fexe daal ba def lépp ngir maintenance ak tamit lépp luy investissement daal di ñoŋ. Euh, compagnie ba nag euh, denc gën a bàyyi xel lépp luy kaaraange daanaka sax loolu mooy priorité bu njëkk Euh, commandant de bord Pape Babacar Seck di pilote de ligne Airbus euh, waaye tamit euh, ca Air Sénégal moom moo yor projet département opération mu koy leeral ci téléphone beeg Jo Maroon. tey ànd sama mooy avion bi ñuy gën a ràññee si avion yi. ay compagnie yu toll ni Air France wala Suisse wala Delta Airlines choisir nañ ko pour pour beesalaat seen avion yi. avion boo xam ne nag boo ko comparé ak ay moromam année quatre mooy Airbus wala Boeing yi avion boo xam ne dinañu moyens yi koy utiliser yëpp donc Air Sénégal dinañu permettre ñu wàññi lu bari si ni ñuy consommer si carburant bu ñu ko doon misaal rek dafa mel nii fi Air Sénégal doon doon dépensé bu toll ñaari junni ci carburant eh, dina dinañ ci wàññi juróomi téeméer lu am maanaa la surtout boo xamee compagnie aérienne moom carburant mat na si boo jëlee ñett eh, benn bi eh, si carburant lañ koy lañ koy dépensé ñetti ñetti ñetti dërëm boo ci jëlee ñetti dërëm benn bi eh, carburant lañ ci dépensé donc lu lu am solo la vraiment pour euh, pour compagnie bi dina ñu permettre ñu répondre euh, réglementation bi changé point de vue environnemental yi maanaam di planète bi xam nga loolu moom ay aspects yoo xam ne mënoo ko négliger muy jël autant d' importance que sûreté ak sécurité bi nga wax sànq surtout euh, li li àdd sanfe bi lu tax mu nekk benn choix bu important nu ñu permettre dugg deuxième phase compagnie bi première phase bi moom la compagnie bi recevoir Airbus à trois cent trente ay lignes phares comme Paris ak euh, New York ci États-Unis léegi dinañu permettre deuxième phase bi ñu consolider ak yi mun a euh, wu ci aspe yi nga cité sànq aspect sécurité boo xam ne loolu moom dès le départ benn enjeu fondamental la mais tamit aspect euh, satisfaction client. juróom-ñett waxtu teg na fukki simili fii ci rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ndax ni ko Ousmane Sonko bëggee mën naa ne maanaam ñu dal di xalaat ab monnaie complémentaire wala monnaie locale di ab xaalis boo xam ne koy xamee ab gox loolee ndax mën na ne euh, comme ni ko Ousmane Sonko waxee euh, expert en décentralisation ak économiste bii di Adama Gueye nag jàpp ne loole euh, du daal loo xam ne dafa war a nekk lu jóge ci maire waaye daal loolee daal dafa laaj loo xam ne daal dafa gën a xóot di ay leeral yoo xam ne indi na ko Ibrahima Diamé la monnaie locale ou monnaie complémentaire du concurrencer le CFA du ko remplacer. moo xam monnaie locale lañ koy wax wala monnaie complémentaire wala leneen bu ñëw sukkandikoo ci Adama Gueye doon expert consultant ci wàllu décentralisation def loolu le ci commune wala gox-goxaan loolu du maire wala autorité locale mën a def. dama xool mairie li mu mën a def ak mairie ak conseil départemental collectivité locale li mën a def ak li mu mënul def loolu bokkul ci li collectivité locale mën a def collectivité locale mënul créer une monnaie. ci gis-gisu Ousmane Sonko mi am programme bi ni mel nag loolu mën na am ndax ñu ngi koy def feneen. maintenant CFA bi ñu yoroon moom dañ koy joxe comme épargne loolu ñuy dajal noonu day constituer benn épargne bu solide boo xam ne mun nañ ko utiliser ci yeneen investissement yoo xam soxla nañ ko mais avec un mécanisme de sécurisation des dépôts de ces gens là. loolu mooy principe bu monnaie locale. la ville de Nantes mi ngi koy def France aujourd'hui en France il y a 120 communes yuy def la monnaie en en maanaam de la monnaie complémentaire seen biir ko fii ñu commencé ko BCEAO ne c'est de l'émission comme niñ ko waxee illégal d'écriture monétaire xam yu demee noonu. expert bi jàpp ne loolu nguur moo ko mën a def wala boog état. décentralisation dañu war a xam ni mairie bi wala conseil départemental bi ci de membrement état la. mënoo jël benn texte benn affaire boo xam ni sa collectivité locale dong la mën a concerné ci Sénégal conseil yeneen collectivité locale mënul amul amul mënul nekk. jarul sax discussion tax mënul am. wante nag Ousmane Sonko xam ne ne monnaie locale boobule du ñëw pour remplacer franc CFA même bu fekkee ne seen xeex ngir franc CFA fii. dañ koy wëyal. ña nga xam ñoom ñoo bokk ca SYNPICS di syndicat bu boole ñi yëngu ci tasub xibaar communication fi ci Sénégal nag section le quotidien national le soleil ak syndicat bu boole liggéeykat yu soleil nag ñoom ñu ngay waajal toggaayu ñaxtu ci fan ñu dégmal ngir daal naqarlu euh, ni nga xam ne daal moom la seen njiit yore seen boîte boobee di nag def lu ko neex di. dàkk ñoo xam ne euh, tegu ko ci benn yoon waaye nag moom it yaa xam mbay ne ñoom ñooñu di ay syndicaliste di wax nag loole am na nañu indi ay preuve ñu déglu kii Nafissatou Sylla ci ay leexal syndicaliste yi mer ba futu lañu def li leen metti mooy doxalinu njiitu quotidien Le Soleil di Yakham Mbaye loolee tax na ba ñu nar amal ay sit-in ngir fësal seen naqar Souleymane Diam Sy di secrétaire général bu SYNPICS section Le Soleil. bu mu ñëwee ba léegi mu ngi licencié ay nit en fait dafa yaakaar suñu liste SYNPICS ak SLS ñoom daf leen considéré ay seen noon lañu alors que ñun ñun ay sokkili soleil bi moo ñu yitte dafa jël décision yi boobu pour ñu gendarme dafa bëggoon am ay jéego. na revenir ci ci décision yi. parce que ñu mu bëgg affecté ci ci biir Sénégal. du moment bi nga xamante ni dañu affecté du enclenché processus euh, renouvellement collège de délégué. nga xaar ba une semaine. candidat ñi nga xamante ni gars yi investi na nga bëgg leen di kii ñun dañ koo wax ni décision boobu. dañ koy contester dinañu organiser ay ay sitting pour mu delluwaat ci ginnaaw ci biir semaine bi xam naa incha allahu taala sitting ba ñu saat yeneen action mais loolu dañ ko dévoiler léegi. xam Mbaye di njiitu quotidien Le Soleil mi ngi sàkku ngir ñu fësal seeni preuve nee ñu am nañu ay preuve ci man nañ ko génne ci janloog taskatu xibaar yi ñu wax ni dañ koy amal bu boobaa nañ génne lépp lu ñu am wala sax bu ñu demee ci kanamu tribunal ndax nag man ay tuuma moom duma ko sax a fooyee. quotidien Le ay délégué yu yees talaata gi ñu weesu. mu nekkoon Nafissatou Ndiaye Abdou Diouf Junior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Saïd Nourou tàggat yaram dañ koy tàmbaleeg euh, football nag ne ci tiis ndax am na ab joueur bu Duc boo xam ne malaise la am mu jaare fa ñàkk bakkanam Alioune Badara Wade lay wuyoo démb ci entraînement ba ci la ñàkkee bakkanam dafa defoon malaise ñu yóbbu ko ci hôpital Aristide Le Dantec foofee kon la faatoo maam Thierno Ba kenn ci njiit yu Dakar Université Club di dikkaat ci anam yi nga xam ne moom la faatoo moom Alioune Badara Wade tolloon ci ñaar fukki at ak juróom-ñett. feebarul dara jotu ko hier soir lui et moi ensemble au local du Duc Football on a regardé ensemble les matchs de première ligue d'ailleurs même au moment où Chelsea gi mu ne 1 équipe adverse dominée mu ngi naan ma grand frère Chelsea mii kat ñu ngi koy dominé su ma dina encaissé Chelsea di encaissé mu ma grand waxoon naa la ma toog tuuti ne booy man maa ngi ñibbi quoi parce d'entraînement à la séance d'entraînement il a assisté échauffement et tout ci biir match bi ñu doon joué match d'entraînement bi sur une action mu éliminé xam nga ñu récupéré ballon bi di dem contre attaque il a reculé deux pas mu toog bi mu toogee après ses coéquipiers sont venus pour essayer de la secourir euh, immédiatement il a fait une malaise ses coéquipiers essayaient de la réanimer après par la suite euh, comme ñun terrain bi ñu entraîné le service médical est tout prêt la suite son âme après ñu yóbbu ko vers l'hôpital euh, de Dantec maintenant on attend les résultats de l'autopsie pour pouvoir récupérer le corps maintenant il y a d'autres dirigeants comme le président et le secrétaire général monsieur Samsidine Diatta sont en de régler les derniers réglages euh, pour que demain inchallah qu'on puisse récupérer le corps euh, corps boobu ñuy récupérer moom mooy bu Badou Badou Wade moom lañ ko doon wooye Alioune Badara Wade kon Euh, faatu ci bi mu amee ñaar fukki at ak juróom-ñett nekkoon footballeur ci Dakar Université Club ki ngeen doon dégg Mame Thierno Bala bokk ci dirigeant yu duk euh, ki nanguy kàddoom di As Baraka. di saw lool njabootam. Abdou hmm. lu métti la waaye nangu nañu. ñu woyal euh, tàggat yaram ak gaynde yu Sénégal nag yi wajal seen wàcc di di woyal seen i wàccaay ñeel kan bi. Coupe d'Afrique des Nations Sénégal jamono ji am ne ñaari joueurs yoo xam ne ñoom ñoo wàllu si ci équipe bi. di Mame Baba Thiam ak Idrissa Gana gi démb kon bokk nañu ci euh, entraînement bi looloo tax kon jamono ji ñu ngi ci fukk ak juróom-ñetti gaynde bi ñu jeexalee seen tàggatu bu démb mu ñetteel bi yoon ci la euh, kii di euh, Saliou Ciss yëkkati kàddu moom latéral gauche bu équipe nationale bu Sénégal di wax ni ñu ngi def lépp ngir wone xarañte foofee ca Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal foofee ca Cameroun ñu déglu ko moom Saliou Ciss ak Cheikh Anta préparation bi ni ma ko jàngatee mooy euh, voilà instant bi nii dugg nañ ci ñu ngi ci préparation yi di li ñu waroon def euh, au Rwanda Kigali moom lañ nekk di commencé fii nii nii donc sa se passe super bien instant bi ñu ngi ci euh, ñu ngi ci waajtaay bi di waaj pour Cameroun. waaw ñaari fan yi nekk na ñaari fan d'entraînement yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ci waajtaay bi dugg nañ ci préparation yi instant bi nii du ma wax ñu ngi ci. moitié bi mais li ñu jot def ñaari fan yi dal na suñu xel quoi. askan bi li ñuy wax euh, mooy mooy ndam li gis li ma leen di wax rek mooy euh, ñu continuer di jàppale seen équipe ñaanal seen équipe te ñu xam que ne ñoom li ñu bëggee ndam bi benn ñu bëgg nañ ko fukk. parce que tamit yàgg na bi ñu dopp dalee daw ci ginnaaw euh, trophée bi nga xam ne mooy Coupe d'Afrique yàgg nañ ci topp di ci daw di ci daw di daw ba tey ji ñu war ci dem li ñu leen wax rek mooy ñu continuer supporter équipe bi sànni ñu ñaan bu baax a baax ñu dem lu ñu bëgg dinañ def suñu kéemtilaay kàttan pour andi leen ndam li nga xam ne loolu lañu loolu la ñëpp Sénégal ñoom ñëpp ko bëgg. ndam loolu ñu bëgg faaw ñoo am ko ci équipe bu mel ni Zimbabwe ba noppi moom ñooy seen adversaire bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations ñoom nag démb lañu yegg foofee ca Cameroun fa nga xam ne fa la ñuy waajale Coupe d'Afrique des Nations bi ñu bokk ak Sénégal seen poule B boobee. ak Guinée ak itam euh, Malawi Covid 19 bi euh, bokk na ci li nga xam ne dina jur jiixi jaaxa ci boobu coup d'Afrique des Nations am na ñeent ci ay joueurs yu Cameroun yoo xam ne jamono ji amee na ñëw ci mbas mi bokk ci ñoom euh, Koundé Malong Bassogog ak Efala ak itam Ngade ñoom nag dañ leen teste positif ci gannaaw ga lañ leen génne ci groupe bi. ci wetu ci waa Nigéria moom Victor Osimhen la ñu ne. moom moo euh, am li nga xam ne moom moo di Covid 19. gannaaw foot bu ñu waxtaanee basket Georges Niang jot na passeport am buy euh, bu wane dal moom ab passeport sénégalais la. mën na léegi dugg ci équipe nationale bu Sénégal ci wàllu basket daal di leen dooleel bu baax a baax. moom Georges euh, Niang ab doomu Sénégal la boo xam ne ma nga juddoo foofu ca États-Unis Euh, moom nag mu nga juddoo ca Lawrence ci Massachusetts euh, foofee la amee kon passeport bu euh, Sénégal fanweeri fan ci weeru décembre maanaam démb moom ailier fort la nekk foofe di basket ca Philadelphia Sixers nekk itam koo xam ne mën na jamono ji ñëw wàllu si waa Sénégal ci seen équipe nationale bu basket ci wàllu góor ñi. mu ngoog jaajëf Abdou Diouf Junior. xibaar ñu ne àdday dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi groupe xalam 2 dina yéegaat ci kaw scène bi benn fan ci weeru janvier atum ca Sorano mu di euh, concert boo xamante ne dina mën a tax ñu màggal seen euh, juróom fukki at waaye itam ñu daal di euh, revisiter waat seen répertoire yëpp dañ ciy déglu Moustapha Cissé ci micro Bintouka. concert bi ça va être parce que on va traverser toute la l'histoire de la musique du xalam maanaam dañuy commencer. commencé euh, spectacle bi lépp lépp loo xam ne histoire xalam la muy musique xalam wala musique Sénégal depuis euh, morceau yu njëkk yi ñu commencé ba morceau yi mujjee yi ñu commencé yi ñu def donc euh, dinañ def spectacle bu doy waar parce que y aura xalam yëpp au complet macha allah ñun ñëpp nañ fi nekk def spectacle boo xam ne bi gars yi gëj nañ ko gis daal fii Sorano pour nag parce que bu ñu fàtte ne anniversaire u théâtre Sorano la 56 ans du Sorano ba pare c'est les 50 ans du xalam donc événement bu rëy rëy la événement boo xam ne ñu ngi ciy woo sénégalais yépp parce que dinañ gis spectacle de qualité comme on a l'habitude bi ñu am habitude di ko def. waxtaan gi ni mu gën a yaatu ëllëg samedi Tafa Cissé mooy doon ganuk seen magazine bi ñu jegleel aada ci RFM xalam ñuy wëtali diwaanu Linguère diiru ñetti fan ñuy amal ñaareeli édition Jolof Urban Festival. ki ko taxawal di euh, rappeur bi di euh, Big Maxu ne woon occasion itam pour moom mu yéegaat ci kaw seen bi bay Assane Diaw. Linguère kumbu lool ci wàllu ligne du rap ci diirub ñetti fan artiste bi di Pape Matar Ndiaye ñu koy woowee Big Maxu moo ko amal. nekk benn festival des cultures urbaines donc panel yeeg yooyu noonu jot nañ ko def ba pare ñu war def show bi concert biir Linguère. bari na ay artistes yu fi nekk artistes locaux yi yi am na ñi nga xam ne invité nañ leen am na suñu xarit yu jógee Dakar am na suñu xarit yu jógee Kébémer loolu moo ko ëmb daal di ay artistes sénégalais yoo xam ne ñu ngi fi wàllu rap am nañ xarañte te it ay jumtukaay am na fii li ci des rek mooy gën a booloo yokku si gëm sa bopp. Euh, am na ay yoo xam ne ñu ngi fi am nañ studio boo xam ne mi ngi fi am nañ ay espace yoo xam ne mën nañ fa tëgg suñu ay affaire donc je vois que ne ñun suñu boole suñuy xol boole suñuy xel xàcceendoo dóorandoo rek culture war na mën a dox ku nekk bu distressé dem sa yoonu bopp après du doon avantage boo xam ne carrément avantage bu am doole lay doon quoi. ci diirub ñetti fan li ngeen dund ay panel conférence ay nataal jàpp projection de film ci teewaayu ndaw yi takkoo takku. mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci diglu bi ay dig daje ëllëg incha ci seen magazine xalam.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 ñoo leen ni may li ci yéenikaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf lu tëgg tas at mi di tàggoo la mboolem yéenikaay ñu xëyandal xëy di tàggu daanaka ak a textu at mi war a ñëw Sud Quotidien nañu donte góorgóoru nañu ba séeré 2021 gi terewul at la mu metti woon lool ci réew mi taroon loolu ci góorgóoru yi lu nekk xew na fi ci justice bi nit ñi daj nañu fi lu nekk ci inondation yi gerew yi bari woon fi lool coono bu nekk nit ñi dund ko ci ba ci gerew bu mujj bi mu di gerew transporteur yi Walf Quotidien di ñu fàttali ne atum 2021 bi mu teroo ci la jalt jalt yi tero weeru mars événement yi fi woon tuuti ko noon Sénégal dund ci musiba mbàbba kumba ñu nar dugg ci at mu bees moo xam ne journal bi nee nañu waa réew mi yëpp ngi xaar njiit réew mi ci ay pexe jëm ci wàllu emploi des jeunes lu ñeel wàllu reddition des comptes Walf Quotidien nee nañu bari nañu ca seeni loxo tàqate ba léegi setaguñu Le Quotidien nañu at la moo xam ne li ñu fi dégg ci waxi viol bari na te dégguñu ko ci ñu ndaw yéenekaay bi jukki ci tuumay viol yi Adji Sarr teg ci kaw Ousmane Sonko ak i tuumay viol yi Fatima Dione teg ci kaw comité d'organisation bu muy Sénégal bi journal bi nañu te nag du cas de viol yooyu am ci mi ci 2021 gi ndax wax nañu lu ma téeméeri cas viol ak juróom-benn fukk ak benn ci at mi te dafa mel ne loi bi ñu muul ci réew mi muy criminaliser wàllu viol moo tiital def ko ti ñawteef yi ndax cas de viol yi daaw jéeg di ci la ëppoon ci réew mi ndax ci at moomu association des juristes sénégalaises wàññi nañu ci réew mi ñetti téeméeri cas viol yu manqué fukk maanaam 290 de viol bàyyi bàyyi mars journal bés bi moo ko bind ci xëtamu njëkk boole koog di ñu fàttali situation yi ñu dund ci réew mi ci ay fitna ak ki manifesté ko ci coronavirus bi i ñaaxo ñaaxo journal ci discours à la nation bu tayam bi le mandat xëy taxaw ci discours à la nation yi li mu ciy laaj moo di ndax discours à la nation yi am na njariñ ni ba suñ jonn yàllay tey président de la république bu fi mas heure bu ñu demee ba at mi jeex di def sa discours à la nation te doo fa wax lu dul ay programme ak i projet yoo xam ne fa nga toog di ko wax boo jugee fa koy bàyyi ñu bàyyee fa te dali ci l'observateur mi xëy di dalal at mu Sénégal jël ko rëq-rëq yi ñu war a joyandi ci a mi a ngi wax ne li ñu ci séntu moo di xol yu neex te féex mbégte mu yaatu ak leeraange mu gis ne njiitu mi Macky Sall moo war a joxaat askan yu yaakaar ngir ñu gëm ne at la muy nice at la muy neex xibaar bu xaw a neex ci la témoigné ñi loru woon ak ñu yàqale woon ci fitna ji ci réew mi ci weeru mars agence investisseur de l'État di maître Moussa Bokar Thiam mi ngi wax ci yéenekaay bi ne donte état bu Sénégal warloowul ak ñooñee ndàmpaay terewul mën na am mu jàppale leen ki lor woon dëgg ci événement yu mars yi di Tonika mi ngi ci l'Observateur mooy agent bu GIGN bi loxom bi yàqoon ci manifesté yi yéenekaay bi di l'Observateur xëy na ko seeti ba wax ñu na muy dunde léegi ginnaaw loxo bi ñu ko pooseel ñaari weer ya mu def ca France ngirub rééducation ba ci na muy dunde ak njabootam jamono ji jamono ji kilifa yi réew mi ak li ñuy fexe mu di luyaas bi nu mu wàññeekoo ci réew mi Vox Populi nee nañu bailleurs yi yor seeni kër di ko luwelu immobilière yi leen koy luyeel ñoom ñëpp li ñu jàpp moo di ne état bi bëgg régler problème location bi du loolee mooy régler problème location bi état bi ngistal lay def ak gis leen ma ñu ne li fekk wàññi wuñu matériel yi ñuy tabaxee luyaas bi du mën a wàññeeku mbir yi ci tabax bi la université ba ñuy tabax ca jam ñaajo di université Amadou Mokhtar Mbow jëwrin gi ñu dénk enseignement supérieur Cheikh Omar Anne nee nañu ci soleil national liggéeye dina nuppi ci weeru février 2022 ba ñu daloo ko mu di cité universitaire bu war a am juróom-benn junniy lal ñu laali libération ngir wax ndaw suñuy tuumal ne da doon jàppante ak jëkkëram baray ko yéenekaay bi nee nañu am na yeneen yu yéeme yu feeñ ci enquête ba Oumar Gueye mi jabaram Fatima Fati dóor kuur mu faatu ndekete dafa feebaroon ba tëddoon ko ay fan bi xulo bi tàmbalee ci guddi gi ca la jabar ja demee ca waañ wa jël fa kuur dóor ko jëkkër ji ñaari yoon ci bopp mu faato bi mu koy def journal bi nee nañu jëkkër ja di Oumar Gueye mi ngi ko doon saraxu Samone Marseille Alfé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Deodran Malaysia Yemo NCA Santé famille ak